suñu tolloo ci lu mel nii dafa war a xam li ko war nguur démb bal ak doom moo ko doon joxe waaye léegi nag carte moo koy joxe bokk yi ñun ñii ñoo bàyyee ko suñu dëkk perturbé bi am ñëw toog moom di wax suñu ko waxee te waxantewuñ ñun suñ génnee Sénégal danañ ñoo xam nañu ñu ah gars ñi daal dañuy jaay président kon nag gor moom na boppam su waxagul waaye as gor bu waxee wax ja mën naa fay bor war naa mën a fay bor wax ja war naa mën a takk jabar li ma bëgg a wax mooy wolof day wax ne bukki bu dabee ponkal te doxin wala sama kilifa ga yàlla na ko yàlla yërëm Ousmane Tanor Dieng doon na wax naan soxla du am rakk bokk yi yéen yi fi teew ñun président département yi fi teew yéen député yi fi teew ak ñi teewul député yi yi teewul directeur généraux yi koo xam ne borom mbooloo nga wala borom njaboot lii ñuy def buñ ko yeewle fas wu yaa te duñ ko gub leen lu ko dundal ma ne kenn ku ne naam yéen ñi teew fii xas nga ndax sa teewaay moo gën a pertinent la ngay wax waaye nag ma ne ku mos a nekk ministre Macky Sall su Macky Sall bàyyi woon tey nguur gi dem yoonam moom kenn du ko lëjal yow mën nañ laa lëjal maire ba mën nañ koo lëjal président département mën nañ koo lëjal directeur général mën nañ koo lëjal keneen noonu kene noonu moom keccat ma ko ca kaar-kaar kon nag koo xam ne koo xam ne moom la ñun ñii ak yow mi ànd ak moom ne yowa nanu fàtte suñu bopp nanu fàtte suñu bopp fii waxtaani biir néeg la ma ne ma ne ma ne du ma samba du ma demba du ma anta ma paate ma xoroja waa kajoor danañu wax ne ku dem kajoor daagu fa ron goo seen seen la ñun ñii nekk biir APR ñoo war a jàmmal Macky Sall defar suñu bopp defaral suñu diggante defar diggante parti yi su boobaa kilifa diine ci réew mi nga xam ne ñoo leen wuyu ko ci dialogue national bi syndicalistes ci réew mi ñoo wuyu si ko ci dialogue national bi borom alal yi ci réew mi ñoo wuyu si ko ci dialogue national bi ma ne mbooleem ku ëllëg Sénégal ñor. bi Macky Sall wootee jàmm dialogue ñëpp jaaxle adduna bi jaaxle te kenn wootewul waxu ko kenn wax yëgulu ko ci moom la neex ñëpp ñëwu si ko ma ne xam ngeen ne loola war naa nekk ab junj ñun loola nag suñ ko amee ci réew mi toog ba ñi ñu ko séqal ñiy bañantu suñu kanam ñun ñu war a seet suñu bopp na kenn ku ne xas en tout cas monsieur le président mënu wax pour ñëpp waaye mën naa wax pour waa département yi ma jox kàddu ci sa nangu waxit ci turu ñi ma bokkal Kaffrine ci le ministre Abdoulaye Sow nga ne toog dëgg la boole nga ñu ñu wane exemple bu rafet te ñu ngi koy continuer am nay ñool-ñool waaye maa ngi lay xamal ne la maa ngi lay xamal ne la bu dee man la mbala moom mii. ci li ñu seq maak moom sa ndimbal la ñuy ñaan pour benn buntu benn porox ndoll bu ko fa wayal loolu moo ko waxee ci Kaffrine nag na ko keneen ku ne waxee fu ne su ñu amee jaaxle ñu waaxu seet si la nga saafara ñu ko dimbali ñu loolu mooy tax ñu am ndam si nous voulons que le président Macky Sall gagne dès le premier tour tenant compte des événements du contexte tenant compte de l'évolution des résultats des élections Il ne faut pas seulement qu'on l'oblige à prendre ses responsabilités, à se sacrifier à nouveau, oubliant sa famille, parce qu'il n'en a pas eu une vie de famille. Si nous voulons qu'il se sacrifie à nouveau pour le Sénégal, nous devons le rassurer.